That's General African Live Jam, African Summer Jam. Two direction. Yes, direction ATL. En mode préparation, c'est doux. Khalimi. da nga noo bokkoo ci ay tim nga laal no yéen fii mooy sa town fii town am non kaana la fii moom rek moo fi yow doo doo war yow doo sonn xoolal gars yi ni ñu tëddee nii xoolal kii <laughs> jógal jógal. mbaar buy dugg dina. kii instant bi toll nii xam la mooy sama problème ak moom. yoo ah. xam ne maa ko gën a nekk. non kaana nga tubayam ci dànk yi <laughs> jógal jógal. cool mi la démb la mu tëgg. <laughs> alba jógal ca heure jot na. dafa sonn mbay mbay ñëw alaaji man ñëw ñu dem <laughs> mbay nee na nee naa la leen dem ñëw leen bi jot na mais doom def nga nag de mais non mais chéri da bàyyi